الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ci ndigalul Cheikh Sidi Makhtar Mbacke xalif général de Mouride e, ngir ñëw ci wetu kenn ci ay jëwriñam muy Serigne Cheikh Bara mu Cheikh Abdoul Ahad mu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara e, ñëw fekk si ko fii ànd ak moom ci liggéey bu am solo bi muy def te muy liggéeyu lislaam di bisu alquranul karim di bisu ñaan moo waral sëriñ bi yabal ma ma ñëw ci moom Euh, seere canti sëriñ bi ak i ngërëmam ànd ak moom ci woote bi wooteel ko ko ci turu sëriñ bi ndax benn mooy daaray alxuraan ji nga xam ne taxawal na ko fi tey ay téeméeri téeméeri ndong nekk fi jàng di mokkal alxuraan at mu nekk di ko tari. yàlla bii nga xam ni moo koy def ci coobaral boppam def ko ci alalu boppam ginnaaw bi mu ci amee ndigalu sëriñ bi nga xam ni képp kuy jullit boo fi rombee li ngay jëkk def mooy xol bu sedd guy ngay am. moo tax ñu ñëw euh, di ko wooteel ànd ak moom ci woote ci bis boobu. ñuy sàkk ñëpp ñëw ci itam nag te ku fi ñëw xam ne bisu ñaan la bisu taatan la bisu alxuraanu karim la waaye bisu fasuwaat itam jàppale waat ko ci liggéey bii nga xam ni liggéeyu islaam la muy daara ji muy jumaay ji nga xam ni mi ngi ko fi liggéey te ku fi ñëw xam ni bu doon te téeméer la da ngay jàpp ni juróom-ñett fukk bi yëpp defar na ko ba noppi kon ku ko ci jàppale itam mu àgg ku ko ci jàppale mu àgg waaye ku ci dugal saw ñax itam da ngay xam ni dugal nga ko ci néegu yàlla te man bànnaa lillaahi masjidan bànnaa laa lahu baytan fil janna loolu yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax kon ku ci dugal sa ñax eh, ci ci mel na ni tabax nga jumaa kon ñu ngi ci woo ñëpp rawatina bokk yi eh, njabootu cheikhul xadim gi rawatina njabootu cheikh Mouhamadou Lamine Baara rawatina eh, képp koo xam ne jullit nga ñu lay woo ci bis boobu fe dina nga xam ni ñoom itam ñi ngi ci biir réew mi ñu ñëw ci ndax ko ne xam na ni fépp fu ëttu dina am di fa taxawal lislaam moom mii la sëriñ bi fab di ko yóbbu foofa yónni foofa mu taxaw fa taxawaay bu rafet kon nag képp koo xam ne sëriñ Bara mas na la fekk itam ci loolu ñu ngi lay woo bis bi nga ñëw ànd ko ak ñun te xam ne bisu la di ci woo itam président de la république du Sénégal mu Macky Sall di ko yëgal di ko yëgal premier ministre ak membre gouvernement bi yëpp di leen ci séntu ñu ñëw ci ñoom ñëpp déggee sama kàddu fii ci Touba Ndiogomaay kon xam ngeen ne digal jëbati na jóge ci ku baax ki ku tedd ki sëñ Sidi Moxtaar yàlla na fi yàgg loolu te ànd ko wér mu digal ko doomam ju baax ji xaritam bi ki nga xam ne daa jaay njureelam jënd ko taalibe bi muy sëñ Cheikh Bara képp koo xamante yaa ngi dégg woote bi sëñ Cheikh Bara bëgg na nga teew ci bisam bi jàppale ko ko ndax bisu alxuraan la bisub la bisub dundal ak mbokk la bisub bisub jokk mbokk la bisu bisub dundal sunu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la kon noo ngi ci woo ñëpp bàyyi góor bàyyi wuñu jigéen bàyyi wuñu mag bàyyi wuñu ndaw bis bi alxuraan rek ko moom buñ ne bisu alxuraan nag jullit yëpp ko bokk la Serigne Touba radiyallahu waxoon ni wala tuadu man raaytum faahu yukhruj la ilaha illa allah kep ku sa gimiñ di wax la ilaha illa allah wonañ la ci bis bi bisub l'islam la so amé lo ci meuna def indi bo amé xam-xam bo ci joxe jariñ ko julit di indil wax nu ko nu deg bis bi nag liñ ci fasiyene waxtane waxtaane rek lay doon waye ak istighfar jéggalu borom bi tabaraka wa taala jéggalu walel mbollem ku sax ku sox soso ci dëkk bi jéggalu walel mbollem jabatuk Serigne Touba waye jébbalu walel mbollem julit yi jullit yépp la ñuy jéggulul bisub istigfaar la parce que alxuraan lépp a ngi ci biir yàlla yeggale jàmm nu doxale kon na ko euh, alxuraan ak sunna digle muy bisub alxuraan bii nga xam ne moo nu tax di daje te nu lu ci bàyyi suñu xel kenn ku ne fas ci yéenee jariñu waaye fas ci yéenee jariñe kon ak suñu mbokk jigéen yëpp bàyyiwunu fenn bàyyiwunu kenn ndax bis bi rëy na bisub alxuraan la bisub sëñ Touba la bisub Cheikh Abdoulaat Baara la bisub sëñ Sidi Muxtaar la ñu ngi ciy woon ñëpp rawatina nag waa kër Cheikh Abdou laat Bara ak askanu Njogomaay fu waay ne muy ci réew mi muy bitim réew ñu ngi lay woo ñu ngi ciy woo ñëpp bàyyiwuñu kenn. ñu ngi woo ñëpp mu ñu nekk fii ak ñu nekk bitim réew sa mbokk yi nga xam si ne ñu ngi bitim réew bàyyiwuñu kenn yéen ñëpp yëg ngeen ko ñu daraat lépp la waay am te mën ko def ci bis bi muy ginaar ba ci gileem bàyyiwuñu leen. lépp lo xass dal li way def sa bop nga ko defal ti carte nak seigne bar assalamu alaykum wa rahmatullah mom lañu jëm muy juróom-ñaari fan ci wéru février ci démé ba 10 h ci lañu lañu xëy tàmbali nga xamné moy tari bi ak conférence bi ndax ay ndaw ngi fi yo xamné ci daara ji fii lañ jànge ba mokkal am na fi ñu jàng ba bind fi kaamil loolu yëpp di ngeen ko gis bu soobee yàlla dinañ ci def nag waxtaan ci ak askan wi ay moo waxtaani kat yu mag yoo xam ne ñoo nekk ci réew mi ay professeur dinañ fi yëkkati ay kàddu waxtaan ci ak askan wi waxtaan ci sëriñ Touba waaye waxtaan itam ci lislaam bi ba nit ñi ñu àndandoo ñoom ñëpp jëm ci kanam. maa ngi nuyu mbokki jullit yëpp di nuyu mbokki taalibe yëpp bis nag comme ni ko ñi fi jiitu waxee. ñoo ngi woo jullit ñi ñëpp bàyyiwuñu kenn bis bi itam bisub ñaan la ñaan pour sunu kilifa yi xam ne ñoonu jiitu ji ak jullit ñépp waaye ba jiitu mooy ñaanal Cheikh Sidi Mokhtar niñ ko baaxoo defee ajjuma ju ne ñu di ko def yàlla yàggal ko fi yàlla may ko wér may ko kàttan ba li mu bëgg a liggéeyal waajuram bu tedd wa ak ak ak ak maamam ju tedd ja lépp mu liggéey ko ñaanal tamit maam yi nga xam ne nu jiitu waaye ñaanal Sénégal itam nag waaye ñaanal kilifa diine yi yëpp lépp loo xam ne itam ñoo ngi ko ciy def jëmm yàlla sunu boroom moo tax nu di ko def ku fi ñëw itam ne fi yàlla dong mu indi nun daal dañuy woote jàng alxuraan woote jàng xasaayit woote def istixfaar woote ñi tawat te munuñoo dem fañ bëgg a munuñoo dem fañ bëgg a dem munuñoo dem fañi fajoo ñu faj leen jox leen garab ñu ñu dellu. kon bis bi bisub jullit ñi ñëpp waaye rawatina nag kilifa diine yi maa ngi koy tàmbalee ci njabootu sëñ Baara du murid yëpp laay wax waaye nag njabootu sëñ Baara waaye nag njabootu sëñ Abdou Lahad Baara waaye nag njabootu képp ku cosaanoo njogomaay. di woo nag tundu kajoor wii nu wër. dëkk yëpp bàyyiwuñ kenn ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di woo ñëpp bàyyiwuma kenn tey ñaan yàlla sun borom it mi nga xam ne dara tawu ko ku fi teew mu neex yàlla mu neex Cheikh Ahmadou Lamine sa aajo faju sa mbir jub wasalaamaaleykum wa rahmatullah gaa ngi noonu bis baa ngi noonu bu ko kenn fàtte le 7 février la ci Touba Ndiogomaay